asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokkum jullit yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent la woon bu baaxoon lool ak mbaaxam tasaaroo lool mu nekkoon koo xam ni ku bari yërmande la jëm ci ñi ko yàlla yónni mu bari lool jëm ci xeetam wi ba tax na yàlla suñu boroom tabaaraka wa taala looloo taxoon mu ni ko wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin nee na ko yebaluma la ci nit ñi lu dul nga doon ak yërmande ci ñoom aha kay yàlla yebal gi mu yebal muhammad alayhi salaatu wasalaam ci nun yërmande la gu jóge ci suñu borom tabaaraka wa jëm ci ñun waaye moom yonent ba alayhi salaatu wasalaam ci boppam dafa fees dell ak yërmande jëm ci xeetam wi loolu moo tax lépp loo xam ne aw yiw la woon ci ñun dina jural yiw ak jàmm lum ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax nañu ko ngir ñu di ko def ngir ñu mën a am yiw woowa waaye lépp lu mas a xam luy indi lor ci ñun lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw jàngal nañu ko ngir ñu wattandiku ko bokkum jullit déglul ma fàttali la bu baax loo xam ne njort naa ni ñun ñu baree baree bare ci ñun bàyyiwuñ ko sax xel te fekk yonent ba alayhi salaatu wasalaam bàyyi na ko xel ndax yërmandeem gu bari ci ñun muy lan benn xadis ngoog boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci burayda ibnul xasib al aslami xadis bi ibnu maajah boo ko solo buraydata mu ni naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ay yuqcada bayna dilli wa shams mu ni bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam day tere nañu ñun ñépp ñuy toog ci diggante jant bi ak ker gi cest gis nga boo demoon ci garab yi ñuy toog di féexlu garab gi nga xam ni day am ak ker bu yaatu ker gi fi mu yam digganteem ak naaj wi foofu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di tere ko fa toog gis nga ko bu doon am mbaar la mbaar mi fi mu yam foofu la ker gi di yam foofu kër gi yem daje fa ak naaj wi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafay tere ko fa toog gis nga tere bi ni mu nuroo lu woyof ci sa xel lu rëy moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tere ko lu tax dafa am beneen saxaaba bu ñuy wax abu iyaab yàlla ko yàlla gërëm da doon waxtaan ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ni képp koo xam ni toogati na ci diggante ker ak naaj fal yaqum na jóg lu tax mu ni fa innahu majlisu shaytaan nee na bërëb boobu ma leen tere ngeen di fa toog foofa mooy palaasu seytaane ci jataay yi yépp maanaam seytaane jataayam boo ko bëggee xam ci jataay yi boo ñëwee fi ker gi di dajeek naaj wi foofu mooy jataayub seytaane yi allahu akbar moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ni bu leen fa toogati mukk soit da sa yaram nekk ci naaj bi lépp wala mu nekk ci kër gi lépp waaye bu sa yaram bi nekk ci naaj bi bi nekk ci kër gi tere naa leen ko man muhammad alayhi salaatu wasalaam kon loolu mooy illa ji tax yonent bi tere ko ba ca des mooy bàyyi xel bu baax yàlla subhaanahu wa taala mas naa wax ci alquran nii wa maa aataakum rasulu fa xuduhu wa maa nahaakum anhu fantahu nee na lu leen yonent bi alayhi salaatu salaam andil lu mu tuuti tuuti tuuti jël leen te jëfee lu mu leen tere lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw wattandiku leen te ko lu tax dañoo dem ba jamono docteur yi ci seen bopp confirmé ni nit ki toog ci diggante naaj ak ker baaxul ci système nerveux wu doomu aadama da koy yàq baaxul ci moom da koy jural ay jàngoro yu baree baree baree baree bari bu fekkee ne yàq na loolu docteur yi ci seen bopp dermatologue yi confirmé na ni nañ ni diggante ker ak naaj nit ki toog ci baaxul ci yaramam da koy yàq dermatologiquement baaxut ba ca des mooy ker gi diggante ker geeg naaj bi sa yaram bi nekk fii bii nekk fii baaxul ci circulation sanguine doomu aadama bi ni deret ji war a dawee ni mu war a circuler baaxut ci ndax li féete ci naaj bi ak li féete ci ker gi seen circulation dafay wuute lool te su yàggee day jural doomu aadama ji ay feebar yoo xam ne day jafe faj lool mën na dem ba indil ko jafe-jafey nooy bu normal wala xol buy tëf-tëfi bu desee normal lépp da koy waral bokkum jullit li may fàttali gi mbokk mi tere la boo xam ne boo ko déggee da nga naan awaaw loolu day matu ko woon waaye ndekete lu ko mata mata mat la ngir lan yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wassalaam ku bari yërmande la lool jëm ci aw xeetam moo tax lu mu la tere lu mu ndaw ndaw ndaw wattandikol lu mu la digalit lu mu ndaw ndaw ndaw defal ndax aw yiw bu yaatu ma nga ca bokkum jullit bokk mi lii mooy sunu fàttali ma yow nañu ko bokk bàyyi xel saa bu demante ci jataay yi nañu wattandiku diggante ker gi ak naaj wi fin daje ñu fay toog nañ ko wattandikoo tey toog ci biir ker gi mbaa bu mënut ñàkk ñu toog ca digg naaj wa waaye daal yaram bi bu mu nekk ci ker gi yaram bi nekk ci naaj bi yonent bi tere na ko alayhi salaatu wassalaam bokk mi yàlla nañu yàlla boole defal jàmm ak tawfiq yàlla nañu subhaanahu wa taala dimbalil boppam ba lépp lu ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal nu man di ko defee ca dem ko bëggee te daje ca ak ngërëmal yàlla waaye lépp lu ñu tere yàlla na nu yàlla dimbale ba nu mën koo wattandi ko bàyyi ko yàlla na nu yàlla defal jàmmi adduna ak jàmmi àllaaxira defal ko mboolem jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.